téléspectateurs de Public SN TV nañ leen bu baax ñu nekk nag ci li nga xamante ni mooy seen micro trottoir tey nag ñu nekk fi nga xamante ni mooy buntu hôpital principal fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy jaaykat yi nga xam ne ñoo nekk fii ci alentour bi dina leen laaj ndax ba fi Ousmane bañ ko hospitalisé ba tey ndax seen njaay mi dox na waaw wala déet ndax ñi nga xamante ni ñoo di patriote ñi ngi ñëw am na engouement loolu yëpp bu ngeen ñu toppee ñu ànd ak suñu cameraman dinañ leen ko fas yéene dégtal nekk station hôpital principal. seen liggéey jamono ji ndax mu ngi dox wala ku ne xam na ne Ousmane Sonko ñu ngi ko hospitalisé fii ma bëggoon a xam seen liggéey avant ak après naka la demee. liggéey bi daal du mu meloon bu njëkk ak léegi benn la sax ñun sax vraiment garage bi sax vraiment da xam na ne Ousmane Sonko ngi ci biir ma yàqal ñu dara. mais nag suñu liggéey bi nag moo doy na waar parce que liggéey taxi léegi <laughs> ñi taxi daa bari lool léegi. parce que taxi dafa am personnel boo xam ne ñu ko war a def da ko war a def mais ñi taxi léegi dafa bari kat-kat yaa ngi taxi eh, eh, eh, yango yaa ngi taxi te yango sax nangu na bu doon particulier sax taxi sax d'accord na mais ay kat-kat yi nekk yango ñu leen di téléphoné ñu leen jël di yàq liggéey bi liggéey taxi daal léegi baaxatul dara dara moom vraiment parce que ñu ko dafa bari te taxi normalement dafa ñu ko war a dafa ñu ko war a parce que taxi dafa nekk liggéey boo xam ni transport en commun la ensemble bu seer lay fay kuy loo xam ne benn mois ngay lu jóge trois cent mille francs assurance ah deux mois un mois bu ne da ngay fay vingt vingt quatre vingt mille ngay fay benn weer assurance kii di fay ba quinze mille francs mu fay ko trois mois assurance mu ñëw di njëkkante ñëw ci client yi loolu rafet Ousmane Sonko daal dégg nañ ne mu ngi ci biir mais yàqaluñu dara ñun nu ñu meloon bu njëkk daal ak léegi benn la rek nuy na ko bu njëkk ak léegi bi xanaa ma de waaye waxoon naa ko kii ba pare man li bëri taxi bi ngeen di wax nag taxi moo doxatul léegi parce que ñu ko da dafa bari yaangoo yaa ngi fi ponkal bu yore magasin bu pare di di di kalandoo ñii fay seen enseignant vingt cinq mille francs par mois mënatuñoo liggéey kii fay benn enseignant quinze mille francs trois mois ñooy liggéey léegi loolu nag la état bi si boppam moo war a jóg si loolu transport lu mu teg ko ci yoon boo xam ñu ko war a def def ko ñu ko war a def bañ ko def ku bugg a def transport nga garé sa kat kat jënd taxi fekk ko pièce normal nga ñëw taxi loolu mooy yoon waaye nag ñii fay seen droit du ñu fay ñii fayul droit di am loo xam ne ñu seen droit amuñu ko loolu rafet vraiment loolu rafet ñii nag may seen seen actellement fii ku fi ne tey ci station bi ku du sama doom sama rakk la ñooy mooy seen kilifa fu mu ne nii waaye nag ñuy dundee léegi ci liggéey war ngeen ko wax état bi yëg loolu nañu dimbali suñu liggéey ñi ci bokk def ko ñi ci bokkul ñu génne leen ci dëkk bi mun a dox. asalaamaaleykum waaye maa ngi tudd Mamadou Moutar Balde. ah non loolu kay depuis mu ñëw fii daal a ah, non aw ma jig jàkk dara daal parce man maa ngi débrouillé ndànk-ndànk comme ni ma débrouillé avant waaw sant yàlla maa ngi bu débrouillé ndànk-ndànk. mbokk yi lii nag lañ leen taataanal ci seen micro trottoir bi nga xam ne ñu ngi ko woon defee fii ci principal jot nañoo laaj ñi nga xamante ñoo di taximaan yi teelu ngeen seen i kàddu waaye itam ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi di leen jox dig daje ba beneen yoon.